ab misaal bu la kenn xàccee dindal sàkkub ceeb ci butik dootoo feyat ceeb bi doo def lu dul jël ceeb bi lekk yeesu fey na sunuy bàkkaar ku ko gëm amatoo loo fey xel mu sell mi méngoo na ak saaku ceeb mu ngi xaar nu teeru ko kii lekk ci ceeb bi dootul fay ceeb bi ñu jënd ba noppi